tamit suñu xarit ak suñu wóolare yi nga xam ne tey dañoo ñëw teew fii di wax ni que fii réew mi toll wax dëgg yàlla am nañ sax pexe di leen woo di leen wax ci leneen loolu li nga xam ne tey moo dajale askan bi yëpp loolu ñuy teel askan bi yëpp loolu nekk réew mi yëpp li ci ëpp ci réew ñi bëgg réew mi ñu ngi xool daal réew mi xool xëy sax xëy na réew mi mais tey ñun ñëpp ñu dajaloo di jàppale ñaar fukki Sénégalais ak juróom-benn yu dem pour taxawal Sénégal ci coupe du monde tey wax yëpp ci loolu la waroon a nekk ñu boole suñu xool boole suñu xalaat boole suñu mën-mën ñi ñaan ñaan ñi def leneen pour que ñooñu am daal pour réew mi am daal yàlla na yàlla may daal donc gerte la ci ñun. cinq mille citoyen Sénégal yi moom toog ndax amul kenn di wax li nga xam ni waa coalition Yewwi Askan Wi dañ koy wax démb Ousmane Sonko tudd na moom ci point de presse nee na am na rapport IGE muy inspection générale d'État mooy saytukat yi nga xam ne ñoom la yoon may ni saytu nee na Ousmane Sonko nee na yor na rapport boobu boo xam ne dañu dee dugg ci dugal ci programme domaine agricole nee na sax sax bu doyee la nee na tamit bari na ko xam-xam waaye dama fàttali rek man de ba du ma ñu jógee sama doom bëgg seetal sama der ci niñ ma yàgg pour que ñu dem considération du ma ni gulee moo am fi de waaye néew ñu koy def décret moo ko nag comme ni ma décret moom sama diggante ñoom mu am lu tudd conseil de surveillance man ma nekk ministre de tutelle ministre de tutelle mooy lépp lu wàllu yor wàllu technicité taxaw du dëgg parce que lu ñu la dénkul moo ko jël du dëgg parce que li yoon dëggoo mun ma cee egg waaye nag moom mi nga xam ne nee na dañoo doy ak suñu ñu suñu yàgg doy moom la daa bëgg di jiite am réew waroon naa fexe la ba di am réew di joxe mu xam waaye du gulee gulee Ousmane Sonko boobu du waaye bii yoon nag ah lu demee na daan demee de li wolof yi wax naan egg na ci taj déeru wallaahi egg na ci taj déeru benn dëkk parce que nag foog naa ko fekk bu mu ni dañ ko umpalu bu mu ni dañ ko day war a waxal ko baax bu mu ni ci yoon nag te génne wu bu ñu demee ci yoon nag te génne wu parce que dinañ ko déglu dinañ ko déglu dinañ ko déglu dinañ ko déglu balaa muy dem bu fekkee lu leer rek la nga génne sax rapport bi mu gën ne na la rapport bi lu ñuy nii ñàkk a xam ñàkk a xam ñàkk a xam xam nañ rapport parce que sëriñ bi ñu wax sax dañuy jiw ñu ci ëpp ci ñoom dañoo def ñoo nekk man maa nañ ko directeur bu programme xaw ma ana waa Sénégal démb ci article bi ngeen jël dañu bind sax l'ancien DG du programme ndax mosuma nekk directeur bu programme mosuma nekk président conseil d'administration ministre du programme détermination yi doo ko tax nangu naa teew doonte amoon naa kiir laay yoon ma ni man bëgguma kiir laay yoon bi parce que boo nekkee ministre am nga privilège des institutions ci say exercice man dem naa sax ba ni bëgguma loolu lépp gerte naa ko mais nangu naa jàkkaarloo ak yoon sama dëkk pour wax ndax man maa jël bu fekkee man maa jël ndaw Sénégal yëpp wàcc ci taal dëkk bi parce que dañ koo war a xeexal parce que moom dafa dem sàkk benn jigéen bi ñu jox ak ay activité contre nature moom maa ngi di wax bu ma bëggee dëgg laa ko woon wax dëgg yàlla du ma naa weer man de lu ñu mën nangu naa def seetal sama def moom fii ñu toll nii tuuti ñu seetal ñu xool ndax lii man yu bi ñu fekk ci soxna si yàlla moom wala moom mu ngi tuut jur góor mu jox ñu mu ngi ko def lambal kaas jox ñu mu ngi ko def yéer ci moom jox ñu mu ngi ko def jox ñu sax sa benn karaw mu ngi ko def kon dañ ko tuumalee man nag woon naa rek léegi nag moom na li ñëpp doon seet làqoo naan tëj naa kii tëj naa kii mais am na ay télé Walfadjri groupe bi maanaam ak ñoom jàppale nañ ci loolu journal la jàppale nañ ci loolu ba beneen journal ak beneen journaliste bi leen tuddee ak ma lay parce que dañoo déggoon nit ñi wax naan rapport rapport rapport rapport bi ko individu ñu bind ñu leen ci yoon ñu laaj leen rapport bi pour ñu rapport bi léegi nag comme Ousmane Sonko nee na li ci seen lépp dajale na moo ko wax de dégg loolu la wax nee na gars yi xam ñu ne man rapport yi am naa ko seeti naa ko léegi ay problème mu dóor waaye léegi man rapport IGE bi muy wax xam nga rapport IGE dañ koy déclassifié pour mun na koy wax mais maa ngi bind ci alxuraan yi même bu ñu ko déclassifié man ci sama numéro sept ak président Macky Sall bu ko Ousmane Sonko joxee rapport bi maanaam ñu génn ci li ma seq ak président Macky Sall maa dinaa taxaw ni ko rapport bii nii kenn du ci toog Ousmane Sonko parce que daf koo génne maanaam ñu génn ci alxuraan boo amee comme ni ñu waxee ni ñooy ñoom dem na xaw ma te juge dafa déposé rapport xaw ma savez, la cohésion et la dignité humaine et les valeurs auxquelles nous, on s'identifie, nous imposent. Je ne je suis le seul, mais en tout cas, gens qui ont eu comportement. Accepter de se démettre de ses responsabilités, accepter de se démettre de ses privilèges de juridiction, accepter d'aller affronter la justice en tant que citoyen simple. Il a eu l'occasion de le faire. Et je suis, jusqu'à présent, prêt à le faire s'il si produit un rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine. Je prends à témoin le peuple sénégalais. Je renoncerai à toutes sortes de privilèges, de juridictions, de privilèges de droit, et j'accepterai Il a été accusé de problème de meurtre et d'activité contre nature. Il a fait appel à son immunité pour se protéger. Il a été accusé de perversité et de délinquance sexuelle. Il a appelé la jeunesse de ce pays à résister à ce que la loi qui nous régime tous ne soit pas appliquée. Maintenant, sa stratégie consiste à allumer des contre-feux, des à que à lui, on lui demande tout simplement de donner ses salives ou de se rincer l'oreille ou nos cheveux. On lui a pas demandé son sang, mais il refuse parce qu'il ne veut pas se blanchir. Donc lui, il est coupable. Voilà. ma jéem a tekki li ma wax ci wolof.